Mm-hmm. combat yi nga xam ne moo taxaw instant yi nii euh, combat lamb ji mënoon naa ne xawoon na suuf tuuti. Mm-hmm. mais diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne Boy Niang suqil na lamb tey ak mm-hmm. Gaston production gis nga nem def keroog Serrano yaakaar naa Gaston def lu rafet euh, euh, bàyyi si yëpp yu ñëw keroog ci li nga xam ne mooy face à face bi muy loo xam ne sénégalais ak àdduna yëpp ko rafetlu di wax Gaston Mbengue ñu ngi lay char ñu papa nga ki ñu def nga ñu ànd fekk makan sa doom ci li nga xam ne mooy liggéey bi nga liggéey Sénégal ci làmb ji mhm. muy làmb xam ne dafa ampleur mhm. muy Balla Gaye ak fi nga xam ne mooy Boy Niang mhm. muy diggante Pikine ak fi nga xam ne mooy Guédiawaye yaakaar naa boobu ba léegi ay sanitrat lu ne nga ci keroog bi àdduna yëpp ko seetaan tey làmb jooju tey lan nga ciy wax ak lan nga ciy gisagum instant yi li ma ci gis de euh, actuellement euh, Balla Gaye moo yor ndam li ci taxaw ci taxawaay bi nii moment bi barke sëñ Bamba Balla Gaye moo téye moo téye ndam li kañ nga ko gis Eh, dama seen seen jàkkaarloo rek Balla gay door na ko ci ay jàkkaarloo xam nga du wax bi du affaire bi du wax kase déedéet te ku xool Balla gay xool taxawaayam eh, gis na mu daan doxee ak ni mu doxee bi yoon ñu defe na ragal la déedéet dafa am te beneen taxawaay Balla dañ koo sangaat defaat ko beneen nit mu taxawaat te dégg ne aw faal waxoon na ma waxoon na ko du faral di wax sa ca mbiru làmba waaye tey danaa wax ci kàttanu suñu borom Balla gay dina dóor dina ko daan daan bu rafet bu jeg bu bu kenn dul xaar yaa ngi sóoraale vaar. maa ngi sóor vaar ndax man soxna aw Fall du tey laa toog fii ci euh, ci écran écran jaaxaluma de mm-hmm. sëñ bi <laughs> déedéet écran jaaxaluma. mais daal li nga gis mooy Balla Gaye moo téye. Balla Gaye actuellement moo téye ndam li barke sëñ Touba. billaay wallaay dubay gi ci sëriñ Touba ay fen te après la ñu wax ne soxna Awa Fall di ngeen ñëwaat fii ne ma soxna Awa Fall la ma waxoon tey am na ci kàttanu sëñ borom. wax ji doon wax ay mbër di ñàkk moo tax na gis nga gis nga boo ñaari ko li ma la wax man nga war a xam ne kon Balla beneen Balla lay sandi tekk bi tek bi dañ ko dañ man merci beaucoup yaa ko yaa ko yegli sa bopp te bala gay incha allah rabbi di ngeen gis yeneen faset ci moom man maa la ko amal soxna Awa Fall dafa changé changé ne dafa sanguwaat tëggaat boppam melaat beneen bala gay parce que xam nga nag gis nga Balla dafa yàgg nag ci ci ci làmb gi te léegi kilifa la ci ah. dama ne kilifa la ci léegi dëgg neexul te kilifa da ngay wane sa bopp nag nga xam ne yow kilifa nga ku ne xam nga ne Balla Gaye Balla Gaye dama dama yàgg di wax ci moom boobu lay door a génn ci site boobu maa ngi door a dénn génn ci site mhm. diggante moom ak euh, Modou loo mm-hmm. ba ma leen waxee ne ne di ko dana ko daan toog ci kawam di sinap defe naa ne ba ma ko waxee keroog bés ba ma am kenn mësuma ko am ci àddina waaw déedéet sant yàlla dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax déggoo man la wax mu yegg yàlla la neex sëñ bi déggoo wax ji xanaa kay ku gëmul yàlla doo ko wax ku amul imaan doo ko wax man dama gëm suñu borom te xam ne tey ñun ñoo ko moom dañu ngi ci tey mais ëllëg yàlla ko moom mm-hmm. li xew ëllëg yàlla rek xam waaye li may li ma yàlla may nag foofu laay waxee ndax ku nekk yàlla da koo may. mais ñu gis ne Balla Gaye saa yu duggee Pikine rek day am mhm. ah. dina wuute de. dama ne la dina wuute. te sunu kanam ma nekk nekk sunu ginnaaw. xam nga ah. booy ñaaman daf ma nekkoon xale bu ma gën a neex dafa neexoon ci làmb bi. Mm. à sa façon de faire daf ma neexoon waaye làmb ji nag moo ko wane du far parlo ah, mais dëgg gi dañ koy wax. si non non non non c'est pas ça non non bul ma diaboliser ak non non non attends attends ñu def ndànk rek. mais dama ne la dama ne la euh, non non ne dites pas ça ne ma diabolise pas bàyyi noonu rek ma wax ak yow du noonu euh, ki nga xam ne booy ñaa la man def ma mos a neex idali laay waxal xam naa la bu baax idali <laughs> xam naa la bu baax xam naa loolu waaye dama ne la booy ñaa nekkoon na xale boo xam ne neexoon na ma trop mm-hmm. waaye bu nu waxee ci mbiru làmb ci lañ toll ak mama fan la fan la affaire bi féete mm-hmm. ma ne Balla Gaye ko tey actuellement barke sëñ Tuubaa moo ko tey actuellement hmm? mm-hmm. su deful deful attention tuuti ci suuf la jëm dina ko daan daan bu rafet bu mucc ay man Fall maa la ko wax. Ah, ah après lay comprendre ci kanam la après lay comprendre dafa changé ay facettes. Balla da ko humilier ci wax maanaam wax ba boo ñaanaan ko mënoo ma euh, déstabiliser. bu la déggee su ma la waxee ne la seetaanuma euh, émission boobu danga naan non non. seetaanuma ko mais dama wax li nga xam ne dama ko seet avant ngeen di ñëw. Balla Gaye actuellement moo téye flambeau bi. Hmm. bul sonn. man maa wax lii man soxna Awa Fall. bon loolu wóoru ma du ma wax lu ma wóorul du wax lu ma wóorul waaye ku ne xam nga ne sarax am na fu mu jëmale doomi aadama ku ne sarax baaxul daa fekk doo saraxe sarax ku ne xam nga ne day fànk dee te ku ne ku nekk ci làmb te saraxe ci suuf nga jëm ku nekk ci làmb gi te saraxe defoo ay ñaan ci suuf nga jëm man faal maa la ko wax waaw Sathiès daal dëggal Sathiès nañ ñoom. Sathiès dëgg da koy dóor ci kàttanu suñu borom. da koy dóor da koy daan. da koy daan mooy mooy la wax rek da koy daan. nga affaire jox ko Sathiès. ñoo ko moom ñoo ko moom ah! ñoo ko moom. doo loo moom ak rëg-rëg moom bul sonn da koy da koy da koy day daw ci kawam da koy dóor da koy daan. day dal ci kawam da koy dóor da koy duma. da koy daan du caaxaan la leer laa la wax surtout Sathiès surtout Sathiès na ñëpp def attention ci moom mbër mu doy waar maa ngi yow vaar bi yow yaay ñëw ma ne bu vaar jotee na ñëpp ñëw mhm. incha allahu rabbi duma waxantu ah, ku ma xam soxna Awa Fall xam na bariw ma sax ay wax ci ci sët yi yow yow indil jël si du ma woote sax naa leen kaay leen déedéet du suma jikko mhm. waaye li ma la du dañ mhm. ci kàttanu suñ borom saakees dina jaar ci kaw rëg-rëg teg ko ci suuf man faal maa la ko wax ci doole rek la koy bëri la koy la koy daanee ci doole hmm. moo ko ëpp doole du benn moo ko doole moo ko ëpp technique man faal maa la ko wax ci kàttanu suñu borom. mais gis nga ne làmb ji si wax làmb ji bi am euh, euh, gis si Gaston production. li ma gis nii mooy que ne làmb day jógaat day suqalikuwaat day jéenam. ma ne day jógaat xooma ci Gaston lay doon xooma mais làmb gi taxaw na fu mu war a jogaatee day jógaat nooy jogaat day jógaat day jogaat mais bu football ñëwee sa làmb wàccaat wàcc làmb wàccaat